asalaamaaleykum waa àddina asalaamaaleykum mbokk internet Saloum ak TV tey nag ñu ñëwaat fii eh, ci Medina Baye ci kenn eh, koo xamante ne eh, si njabootu Cheikh la mu nekk Thierno asan dem nekk ki nga xam ne mooy Serigne Kabir Dème nekk tamit ki nga xam ne mooy xalifa bu Cheikh Assane dem dama koy daal di nuyu rek daal di koy jox mu nuyu mbokk internet Saloum ak TV ñu salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax. salaam delloo nuyoo leen di gërëm bu baax leen di wax na asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa leen di gërëm bu baax ci seen teewaay fii ci Medina Baye teewaay fii tamit ci kër gi bisimilah. jërëjëf euh, ginnaaw nag bu ma ko bàyyee mu nuyu mbokk euh, Salamactu TV mbokk internet yi dama koy daal di laaj rek euh, moom kan moo nekkoon ki nga xamante ne mooy Thierno Assane Dème. waaw Cheikh Assane Dème moom. Cheikh Assane lañ koy wax mu ngi jugee Fuuta mu juddoo dëkk bu ñaan Sinthiou Dande foofu la juddoo foofu la cosaanoo ay maamam yëpp ak ay baayam yëpp foofu lañ cosaanoo daf foofu la jàngee alquran mokkal alquran bu mu waree jàng xam-xam mu di dem ci eh, Kanel. ci sëriñ Thierno Seydou Soraw dem mu dem ci moom jàng ci moom xam-xam maanaam mboolem téere yi ñuy jàng yëpp tey ak euh, yëpp ci moom la ko jàngee eh, ak euh, ci moom tamit la jàngee lasaraar ba fi lasaraar di yem yëpp mooy Thierno Seydou Soraw moom nag bi nga xamee nag nekk na ak sëriñ boobu yàlla defoon nag mu amoon itte lool. te lam la ko taxoon ñëw tamit mu nekkoon loo koo xam ne tamit ku ko joxoon àqam la ba mu jeex tàkk e, nekk nag sëriñam mu wóoloon ko lool bëggoon ko lool ba jiitaloon ko sax ci kër gi jiitaloon ko ci daara ji ci njàngu mi e, jamono yooyu tamit mu ngi nekk ñoo xam ne ci biir daara ji ñoo xam ne mën nañ ko sax bàyyi waaye cofeel bi sëriñ bi am ci moom ak wóolu bi mu ko wóolu ak moom ni meloon ci sëriñ bi moo tax sëriñ wóolu ko daal di koy jiital ci daara ji ci njàngu ba yàlla def nag bi mu war sëriñ bi waree dem tukki euh, dem aji ci la ko nag dénk kër gi dénk ko njaboot gi dénk ko daara ji affaire nag daal di dem aji bu demee ba ajam pare ba muy dëpp mu ñëw ba Suudaan foofu la ko yàlla moom foofu la gaañu mu gaañoo nag après ñu def télégramme yónnee ko Fuuta wala sëriñ bi gën na àdduna keroog bi nga xamee ne jot na leetar bi rek euh, télégramme bi keroog boobu guddi googu jooyu métti la nekkoon ndax boobu moom xam ni meloon ci sëriñ bi ñaareel tamit mu xalaat ne man mi li ma taxoon li ma bëgg amaguma ko te ci suma sëriñ bi dem na déedéet euh, Thierno Seydou Sooraaw ca Fuuta waaw Fuuta fam jànge moom dafa jàppoon ne kooku sëriñam boobu dégg nga amul ku mel ni moom te li mu bëggoon yëpp mooy xam yàlla yegg ci yàlla ah sëriñam bi dee na te lu amu ko léegi nag mu nekk di xelaat xelaat boobu ba guddi gi mu nelaw bi mu nelaw na mu gént sëriñu sëriñam du Chérif Mouhamadul Makhtar daal di koy feeñu mu yëkkati dànk suuna daal di koy jox di lekk mu mu mu dëkka mu dànkaat beneen jox ko ba mu ñetteel mu wax ci xelam ne waaw Serif moom mu ngi may jox may lekk duma ko mu ñaanal ma mu ne ko Serif ñaanal ma Serif ne ko loo bëgg mu ne ko xam yàlla rek laa bëgg mu tàllal loxoom Serif di jàng di tofli ci loxo yi tofli loxo yi ba mu fees mu gungee ko ak dànk bu mujj bi mu daal di koy seex ci gémminam foofu rek sëriñam Seydou Cheikh Araw ñëw ci moom ci gént feeñu ko ne ko ndax gis nga Serif mu ne ko gis naa ko mu ne ko ñaanal na la mu ne ko waa ñaanal na la mu ko da génn fii li nga soxla amu fi da ngay dem fi jant bi ci sawee fekk dafa nekkoon koo xam ne euh, ku ku ñeme woon sëriñ bi la ko miinoon la mu ne ko man sëriñ bi man du ma déggee noonu fan fu jant bi sooye mu ne ko da ngay dem Kaolack ci alaaji Ibrahima Niass amul tey ci kaw suuf koo gën xam yàlla mu ne keroog boobu la doog ci diggante gi ci loo doog dégg turi Cheikh Ibrahima mosu ko dégg mu xëy bës rek mu bind ko leetar mu xamal ko ne ko suma sëriñ ca xaybu moom tetal ma tettal moo ma la tettal eh, man la xam yalla rek la bëgg waye nak ma ngi xaar jigéen ñi summi rek suñu summee rek man dinaa ñëw eh, Cheikh ibrahim bi mu jotee lettre bi tontu ko dal di ko yoni azkaru tarbiya eh, te wul ci lettre bi mu naan ko ñewal yow suma dom nga yow suma domi ruh nga ñewal yow bok nga ci ñi yenu suma lèr ak suma suma mbot légui nak bi ñu jotee lettre bi nag mu daal di commencé def askar yi mu ko yónnee bi nga xamee ne jigéen ñi génn nañ rek bés bi ñu génnee ci suba ga rek la xëy daay tàggatoo ñoom daal di ñëw bi mu yegsee eh, Medina ci nii la ñëwee ci Cheikh Ibrahima bi mu ñëwee tamit eh, si daal yi moo ko moo ko teertu dalal ko fekk Baye waxoon na si daal yi ne ko maa ngi am gan mu ngi ñëw jógee Fouta ñu ko Alxasan dem su ñëwee nga dalal ko après nga indil ko ci man. DRC daal yi daal di koy teertu dalal ko pare ànd ak moom dem ci Baye moom demee nag ci Baye gise gisee moom mu continuer askaaru tarbiya ci fukki fan ak euh, juróom mu pare lépp lu mu doon euh, tarbiyaam yëpp mu pare waaw loolu foofu nag la nekk gannaaw mu nekk fi ñaari at Baye yeewi ko pour mu dellu Fuuta bi nga xamee ne nag yeewi na ko mu dem mu dem ndakaar Euh, léegi fekk Baye Cheikh Omar Fouti euh, Cheikh Omar Touré xariti Thierno la woon moo xam ne moom su ñëwaan Medina rek mu nga Thierno moom néegam mu ngi woon ci jumaa ji moom par aljuma lay ñëw ñooy xëye Ndofane ñëw su ñëwee nekk bu jaar foofu ci néeg Thierno ñuy waxtaan ba heure julli jumaa ñu dem julli ji su julli jee ba pare moom dafay dem ci Baye fa lay añee après gontu dellu dellu dellu Ndofane jour bi mu ñëwee nag mu fëgg fëgg fëgg fëgg kenn uyul ña fa nekkoon ne ko koy sel man jàmm ñu kooku dem na bàyyi yeewi na ko après nag moom bu ñu jullee juma après mu dem ci bàyyi mu ne ko ah Thierno dafa dem mu ko waaye ah, yeewi eh, kooku nekkul ku ñu ko waroon a bàyyi fii parce que yàlla may na ko ci xam-xam lasaraar am na lu ci xam lu bëri bëri yàlla may na ko ci waroon a bàyyi ku mu toog fii waaye ko ah yeewi naa ko eh, gannaaw loolu nag bi nga xamee ne Thierno eh, dem na Bambey la ñëkkee dugg fa xalwa ñeent fukki fan waaye bi mu amee ñaar fukki fan ci la feebar mu sibiru mu daal di génn ci xalwa bi bi mu demee Bétténe mu dem dakaar bi mu demee Dakar mu duggaat euh, foofu xalwa pour ñeent fukki fan bi mu duggee xalwa ba mu génn jour bi mu génnee la ko njaatigéem wax na ko ah yow sa sëriñ de ñëw na Dakar mooy Cheikh Ibrahima euh, mu daal mu daal dem nag ziyaara ji bàyyi fekk mu ngi kër Alaaji Omar Kan dam bi mu demee ziyaare ko ñooy bàyyi bi mu ko gisee rek daf na ko ah yow Thierno da feebaroon mu ne ko déedéet damaa duggoon xalwa ñeent fukki fan tey suba laay dugg génn mu daal di bàyyi ñu nekk ci néeg bi génn mu daal di gisee moom ñu waxtaan mu wax ko li gis ci xalwa bi yëpp bàyyi na ko nag man man maa la yeeyu woon waaye dama bëgg nga ñëw dellu Medina nga toogal foofu nga nekk njaati gi képp kuy tukulóor mu ne ko sax bal sax kuluwaari jën képp kuy ñëw duy si rek léegi nag euh, te tamit xam-xam bi la yàlla may tamit mu koy liggéeyal noonu ci yàlla dem jël bagage am ñoo ànd ak bàyyi daal di ñëw kawlax loolu moom moo yor dellu seetam kawlax loolu war a ma toogaayu ko kawlax bi mu ñëwee euh, bàyyi bi mu demee ba nga xam ne euh, guddi na ba mu jël malaalam pour tëdd ci la ko oolu mu ñëw mu waxtaan ak moom waxtaan xóot xamal ko li mu bëgg ko yëpp na ca la ca la bu njëkk dugg juróom fukki fan la ñeent fukki fan yu njëkk yi ko daan indi leen ndogu bi daaw na ko lekk waaye ñeent fukki fan yu mujj na ni ko daan indi leen ndogu bi ni ko fase woon Thierno Mamadou Wagne moo doon bras su ñëwee na indee woon kii bi teg ko su ñëwee noonu la koy delluwaate fekk laalu ci dara Euh, bu mu génnee nag xaloo juróom ñett fukki fan ci la ñëw euh, dem ci Baye euh, Baye xam wax ko li mu gis ci xaloo bi yëpp Baye yëkk yëkkati juróom benn junne pour jox mu ne ko déedéet man sa ñaan rek ak sa ngërëm laa soxla waaw noonu la nekkee ak Cheikh Ibrahima di ko liggéeyal ci xalimbaam ak ci kurusam am na ay temps Baye yónni ko ci yenn bërëb mu dem ñëw léegi nag ñaar fukki at ak juróom-ñeent ci lañ dund ñoom ñaar ci la nekk moom di koy liggéeyal ci xalimbaab ak ci kurusam nee na moom musul lekkal bàyyi benn dërëm ñu dul benn yoon boobu buy bàyyi di waaj dem London mu bàyyi oo ko pour mu seetal ko yoon mu ne lépp loo ci gis bu ma ko nëbb ah, nag bi mu xoolee daal di ñëw wax ko lim gis yëpp ne ko nag il ñu def sarax lu weex ay yëkkati Eh, juróom benn juróom benn junne juróomi junne jox ko pour mu dem jënd xar pour que mu demee mbokk tukkulooram yi ca daral ba ñu jaay ko xar bi ñetti junne ak juróomi téeméer mu ñëw indi bàyyi woon ko xar bi bàyyi na ko waa demal nga defal sarax bi mu koy delloo wecce muy ak juróomi téeméer bàyyi na ko déedéet ci sarax bi la bokk mu ne mu ne de loolu moom lekk na ko waaw boobu nekk ak sëriñ bi yëpp benn boobu la ko mas a lekk xaalis maan daf daan def moom lépp lu liggéey lu mu am ñu jox ko Cheikh ndax lan soxla woon barke Cheikh Ibrahima soxla woon ñaanam soxla woon tamit ngërmaaneem ñuy wax euh, léegi rek euh, Cheikh Cheikh ak euh, Cheikh al moom Baye Niass waaye lan moo indi woon tukkulóoru baay bi kon. waaw tukkulóoru baay bi moom daanaka wolof yi ak taalibe yi gisoon ne mooy nekk na tukk jógee Fuuta xam nga Fuuta yi Fuutanke yu mag yi sëriñ yu mag li mooy su ñëw ñu ngi ci yeneen kër waaye moom nag bi ñëwee moom dafa ñëw jëbbal baayam bàyyi boppam moo taxoon nag ñu naan ko Ceerno Tukulóoru Baay moom mooy Tukulóoru Baay bi nga xam ne tey taxawal na feeñalal li indi taxaw liggéeyal li Baay indi ba feeñal ko ci am yëpp moo tax ñu koy ràññee ne Tukulóoru Baay bokkoon na ci tamit wolof sax leerutoon bu baax waaw ñoo ko wax Tukulóoru Baay soppi yeeg taalibe yi yëpp pour ko ñoo ko déggandoo dégg ngeen li nga xamante ne Serigne Kabir mu nekk euh, xalifa bu Thierno Assane Deme li nga xam ne leeral na na ko euh, mbokk internetu Saloum Actu TV ak euh, ñi nga xam ne ñooy taalibe yi waaye ma bëggoon rek mu leeralal ñu rek Thierno Assane bu weeru gàmmu ñëwaan instant bi ñu nekk nii moom ana naka la ko daan dundee. waaw su moom nag macha allah su weeru gàmmu taxawaan ak mbégte ak euh, day fekk sax ñëkk wala weeru gàmmu gi mooy weeru katmiya bi mooy guddi guddi Cheikh Tidiane bi ndax yàlla def na amoon na guddi gi amoon na bindoon nañ ko waaye ñi pour génnee ko ci bitim feeñal ko màggalal ko mooy ki ko njëkk a def waaw moom ko njëkk a def euh, su su weer woowu taxawoon da ko doon fuglu bu baax a baax ba taxawal guddi gi guddi bi nga xam ne ci la Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu jot maqaamaam bi gën a kawe mooy katmiya waaw suñ dugg dundaloon ba mu jeex nag muy pare tamit fuglu préparé gàmmu gi gàmmu gi tamit su weer wi daan dafay nekk tamit maanaam ñu koy gis ak mbégte gis ak xol bu ubbeeku parce que muy préparé pour accueillir gan ñi ndax comme bàyyi moo ko wax na mu nekk jaati bi képp kuy tukulóor bépp tukulóor boo xam ne rek yaa ngi aju woon ci Mawlana Cheikh Ibrahima li ci ëpp foofu noonu ci kër gi lay dal boobaa nag ki nga xam ne ñi boo jóge boggee ñu seen Abdoulaye Dia ñu xam ne 24 euh, heures sur 24 heures rek ci sikkar la ñuy nekk di tudd yàlla euh, ci période boobu da ngay gis mu ngi mu ngi kontaan ndax su duggee tudd yàlla rek dangay gis mu ngi si ronk ñu commencé wadd mu commencé di jooy commencé tamit di waxtaan di waxtaan ci baay di waxtaan ci maarifa di waxtaan ci Cheikh Tidiane radiyallahu anhu di waxtaan ci yonent bi tax na ci noonu la doon nekk am na jotaay boo xam ne da ko daan def bu bu gi ci yooyoor fekk muqaddam yeeg taalibe yi ñëw ñëpp lañuy dajee foofu ci mbedd bi mu waxtaanal leen ci ci gàmm gi waxtaanal leen ci ci Cheikh Ibrahima mi nga xam ne tey ñun ñëpp moo tax ñu mën a ànd ak moom bay euh, dagg ay kii ñëw fekk si ko ñëw di gàmmoo fii ci Medina waxtaanal ci mel noonu di ñaax taalibe yi seen mbëggeel ci Cheikh Ibrahima di ñaax taalibe seen mbëggeel ci Cheikh di leen di ñaax seen mbëggeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen di ñaax tamit ci sell leen di ñaax tamit ci li leen yàlla sant ci lu baax ñu def ko leen yàlla tere ñu bàyyi ko ci loolu la daan ñaax euh, maanaam waxtu ci loolu rek la daan waxtaan di tamit di gars di surtout tudd yàlla dégg nga maam euh, muy génn lépp lu mu am na daf koy génnee ñu koy taralee gan ñi dégg nga maam ba léegi loolu mooy li wéy ci kër ga moom moo fi nekk di dox ba fu mu nekk ni ñun ñëpp ci loolu la ñu yar ci loolu lañ judd mu yar ñu ci nàmpatal ñu ba tax na euh, gàmm su xasee julli si rek amatuñ beneen soxla amatuñ beneen itte lu dul accueillir gan yi tareel leen comme ay gan yu yonent bi leen sallallahu alayhi wa sallam ba kenn ku nekk ñëw gàmmu ci jàmm du xiif du mar du rafle du am fu du ñàkk fu mu tëdd ba yàlla de gàmmam pare mu dellu ci jàmm ñu ñaan ko déwén loolu daal Thierno ci loolu la nekkoon wax yàlla euh, ay ay bés yu dum daan kontaan la bés yoo xam ne sa da daan gis gàmm gi jotee day jaabante diggante waañ wi ak ak néegam di seet ndax mbaa liñ togg su suñuy yàq day ñëw taxaw muy seet ndax gan ñëpp lekk nañ ba mu xam ñëpp lekk nañ ba suur naa nañ ba màndi ci lay doog am feexaay daay doogal dugg ci néegam toog macha allah macha allah dégg ngeen li nga xamante ne sëriñ bi wax na ko euh, ci Thierno Hassane Dème li nga xam ne la daan dundee bu période gàmmu ñëwaan euh, ñuy waxtaan tamit euh, lu bari si nga xamante ne jaar-jaaram at dundam mu mel ni nag lépp lépp lépp sax mënuñ koo waxtaanee si benn émission xaju fi waaye nag xanaa dinaan la sëñ bi nga def nga defal ñu ay ñaan rek. di gërëmaat beneen yoon ci seen taxawaay ndax wax dëgg yàlla li ngeen di def dafa am solo ndax yene ngi tasaare manam li nga umpu ne na umpul na nit ñi na ñoo xamne ne bu na yene pour ñew fekke ci gamu wala yéen fekke ci gamu wat yalla may leen moyen bobu kon nak yene su ngeen ñewé taxaw taxaway remplacer remplacer moy li fi xew yépp ngeen leen koy jox ñu koy dégg ñu ci jëriñu loolu wax dëgg yalla ci ci liggéey bu mag ngeen nek kon nañu leen ñaanal yalla yalla gëna yaatal sen sen sen sen sen télé bi yàlla def ko ba nga xam ne ba ngeen bokk ci télé yi gën màgg ci télé yi tey ci Sénégal ñu koy wax yàlla wattu leen ci aar leen ci ubbi leen ci ba lépp lu ngeen ci namm yàlla dafa leen ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci barke Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu voilà mbokk internet yi ñoo ko gisandoo ñoo ko déggandoo xanaa di leen di jaajëfal bu baax a baax di ko jaajëfal moom ah, sëriñ bi mu oyof lool nag bi ñu ko woowee amul benn problème mënuñu nañu ñëw ah, ñu kontaan bu baax a baax si ñëpp ñi nga xamante ne jàpp nañ si di remercier sama caméraman bi nga xam ne moom laa àndaloon Pam Maysa Diop ah, di leen di jox dig digee fii ak ay fan jëmmi jamono merci beaucoup jërëjëf.